salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu waa mbooloo mi Ousmane Cissé mooy siyaar bu baax di ñëpp dalee ko ci sëñ Moor jaar ci sëñ Maxtaar Silla ak sëñ Mabdu Lamin ak sëñ Omar Dem ak mboolem ñu ci yokk di ci joxe di leeral ci wàllu xam-xam dañ señ jawrin señ max señ Muntaxa job di ñaan sun borom it mu matale turu ci mbolo mi yépp ak ci mindeef yépp di nuyu ñi jégué ak ñi sori ñëpp ak soxna ye nga xamné ne ñooy waxtu sur lepp ci lepp ci li ci seen loxolay jaar ndax bu dee li ñuy defar ñokoy koy defar te am ci walu weneen it te man ko ko ñoom itam yalla na yàlla dooli tawfiq eh, dafa am ci gannaaw suñu mor dafa am lu mu sàkkoon ci ci wat son bobu doon wax ci walu ni ñuy dundé ci dundin wi gëna ëpp ngeenel ci nit yi ñuy lek boole ko am naa son bi nag man wër naa ko wër man gisatuma ko xam naa dama cee dellusiwaat rek ci tënk ko noonu <sighs> dundin woo nag xam naa ne du du gënal ndaraame ndaraam yi sama mbokki ndaraame ndaraam yi ma xam naa du leen gënal ndax ñoom dañuy dajale rek ni ci cant gi dajale rek waaye li ma waxoon toujours yi mel noonu surtout xew yu mag yi su jàllee boo demee ci fajukaay yi da ngay fekk. waaw tension yi yéeg lool nga gis ñi seen tension wàcc lool nga gis ñii seen sugar jabet yéeg ba jéggi dayo ñii seen xol yi commencé rythme bi mu doon def yokk ba nga xam ne jéggi na dayo te yi ci ëpp du daara lu may jéggi dayo ci ni nga doon dundee walla boole yu bokkul wala xeeti tawat yeneen sax yoo xam ne nit ki gis ko ci boppam yoo xam ne xamu ko am na bis benn mbokk bu dem ci benn docteur booba xew yooyu ñoo jàll mu dem demee fekk booba sukaru jabetam yéeg lool mu dem fekk fa ñu bari baag si docteur bi ne ko ah yow xanaa waa waa sàngam nga mu ne waaw mu ne waaw kay moom kay seen seen barkelu yeeg seen nangam yi su ngeen ko bàyyut waaw lu dikk a barkelu ci waaw kon gis nga yooyu yëpp <laughs> moo tax xam naa sëñ Mor nañ ñu ñu ñu ñu dellusiwaat waaye diggante jaxate jaxate yeeg looloo yeeg sila sila ak ture ture moom waaye sëñ Mor bokk ci de waaw moom xam naa ne. mom lii du len du len gënal mom dañuy bëgg rek moy ñu ramasser ko yëp tek rek wa dañu waxone leg lek yi man nañ koy séddale ci ñetti ñetti xaj am na lu ñuy wax nashwiyat yi tubaab arab yi tuddee nashwiyat moy fekk la ci tubaab lolu moy lu melni mburu ceeb ak ñambi bi dugub bi xeeti mbele yi ak yu mel non yep ñuy dundee noonu benn xaaj boobu am na lu ñuy wax protéine yooyu ci protéine yi mooy lu mel ni xeeti yàpp yi jën am na ci lante bari na ci moom soow am na ko nen am na ko ariko am na ko ak yu ko ndiroo moom itam ak xeeti fruit yi ba ci lëjum yi te wala lëjum yi mooy lu mel ni suppame tamaate salaat concombre ak yu mel noonu yu werte yooyu yooyu daanaka boo ko xoolee mooy yi ñu gën a dutee bu dee fruits yi mooy lu mel ni moom itam ñetti xaaj la fruits yi dañ koy séddale ñetti xaaj comme lekk yi lu mel ni mburoog yi ko niru ma limo noonu protéines yi mooy yàpp ak jën yi ko niru ak yow jote woon ak lajum yi lajum werte yi mooy supame tamaate salaat ak yooyu ni ko niru noonu bu réew bi ñooy mooy ñetti xaaj yi fruits yi dañ koy def ñetti xaaj mooy fruits acides yi mooy fruits yu frox yi waaw yi nga xam ne dañ koy lekk te mu xaw dem te mu frox am na yoo xam ne froxul noonu ak yi nga xam ne dafa saf sukar mooy dafa neex lool ñetti xaaj yooyu bu dee fruits acides yi mooy yi frox mooy lu mel ni limon ak orange ak pamplemousse ak mandarine ak fraise ak yi mel noonu yu ko niru bari na waaye yiñ ci gën a teg bët nii bu dee yu xaw forox yi tuuti mooy lu mel ni ki pom da nga bu forox da nga bu neex waaw am na poire lu mooy loolu niroog pom noonu moom itam day xaw a forox tuuti ak yi ko niroog moom itam bu dee yi nga xam ne te dañ moom safuñ foroxuñ may dañoo saf suukar banaana ci la bokk sañ ci la bokk tàndarma ci la bokk dégg nga ko ak yu neex yooyu yëpp nga xam ne buñ koy lekk day saf sukar yooyu yëpp moom itam kon ñetti xeeti fruit yooyu yi ma waxoon mooy mel ni xeeti pat yooyu moom dañuy wax ne du ànd ak protéines yi loolu nga boole ci lëjum gis nga ceeb waaw day ànd ak lëjum mais ceebu yàpp rek ah xam naa dana neex ci ndaraami ndaraami waaye déedéet. ñoom borom xam nga dañoo ne ceeb moom boo ci defee yàpp wala nga def ci jën it day ànd ak lajum yu bari waaye bu mu nekk ceeb yàpp dong dong nga lekk ko hmm, soo ko lekkee da nga rekk da suur de waaye du gën ci wér-gu-yaram ndax faw dafay ànd ak lajum lajum yooyu ñu waxoon bu dee fruits yi doo lekk protéine rek teg ko ci waaw da xaar ba mu rees. nga door ko lekk gis nga loolu itam ñun da teg yàpp fii dóor ba sa biir fees del nga indi pomme jeeg banaana jeeg orange yëpp yëpp jóor ci teg te yii ni ma waxee ni mooy xam nga lekk yi ni mu wax ni yi ci comme ci tënk la rek waaye ni ko bu doon loolu dañ ko séddale yëpp ndax yii dafa am lu muy yéegal yii dafa am yu ñuy wàccee yii dafa am lu ñuy yemale yow nag soo jëlee bi jañ ak bi bi bi bi yëpp boole leen ñu ne ci benn biir wax dëgg yàlla loola la mooy jur day doy waar lool loola tax nag ci xam-xamam ñoom duñ nangu loolu waaye nag ñun koom dañuy lekk rek seet fam neexee ñu lekk ko ñun suñu yoon ci loolu euh, jën yàpp meew soow yooyu ku ko lekk da xaar ba mu rees lu man quatre heures de temps ñeenti waxtu nga door a teg fruit yi nga cee lekk nga door ko cee lekk ñoom loolu lañ wax ne moo ci gën fruits yi it ay xeet lañ xeeti fruits yi noonu moom itam duñ ko jaxasi noonu rek benn palaa nga dagg pomme def ci dagg banaana def ci dagg jël tàndarma def ci jël mandari def ci jël limon def ci pompalimus yëpp téedét ñoom it nañ koy jàngale gënut waaw faw da leen di berale kon boole leen yëpp lekk ko ci benn yoon gënul bu dee xeeti diw yi moom itam gis nga ni ñuy dundee diw saaf rek te loolu ñoom dañ koy bañ sàmm wér gi diw duñ ko saaf xam naa soo ko waxee fii mu mel ni da ngay lébén lu pen ceeb bi rosi wu déedéet soo seedee seen togg yépp ñi yi sàmmante wér gi yaram duñ saaf diw mukk mukk mukk tàngal de mën nañ koy def ba mu tàng wala ñu togg li ñuy togg ba muy ñor ñu tànk ci diw gi sotti ci waaw wala ñu togg ba mu ñor lu mel ne diw olive wala yeneen diw ba mu diwu gerte gii nga xam ne ñoom dañ koy defar ba mu jot ñu xelli tuuti su wërale ko ci waaye comme ñun niñ koy doxale nii saaf ko noonu lakk ci yàpp bi wala lakk ci jën wala lakk ci nen loolu de ñoom ci wàllu xam-xam nanguñ ko dañuy wax ne wér-gu-yaram nanguwul loolu waaye nag comme ah bëri gi ma mën naa dem a dem ba yow mi koy wax sax ñu jàppee la leneen waaye loolu ñoom nanguñ ko diwlin duñ ko saaf diwlin duñ ko saaf tawat yu baree bare ngi nii ci diwlin gi ñuy saaf nii ci lay juddoo diwlin duñ ko saaf da ngay togg ba noppi wala ba muy bëgg sotti nga def ko ci loolu nag xëy na ñun li ñuy lekkee dëppoo la loolu parce que nañ ko xamee ni dëppoo te bu njëkk it yàlla yaakaar naa ne noonu lañ daan def njëkk bi ñu daan jëfandiku duñ leen léegi lañ dem ba xawma li ñu ko jéggaane waaye soo demee ci ñañ koy royee sax ñi jàpp ne ñoom ñoo ñooñu ñooñu ko jox it soo demee foofu duñ ko lekk noonu te man xam naa jaxasoo naa ci ñu bare bari fan xam naa ci seen kër yi eh, gis naa niñ koy lekkee ñoom ceeb yi ñuy lekk yàlla xam na ne suñ ko tegaloon sila sila yi duñ ko laal wala ñu tegal ko jaxate jaxate yi duñ ko laal ndax ñoom niñ koy toggee daanaka ndox rek lañ koy toggee diw giit noonu du du duñ ko lakk kon moom itam loolu gëm hmm. euh, warga itam dañ koy jëfandikoo baax na lool waaye moom itam ku néew doole wala xeeti animé yi dañ koy tere ko naan te it li may baax baax boo koy naanee danga koy woyofal woyofal ko lool waaye gis nga ñu itam loolu soo tàgg tàngalee sax ñu ne yow sa warga wi ñorut tàngal la ñuy def waaye duñ ko duñ ko baxal warga kenn du ko baxal moom itam tàngal tàngal ndox mi ba mu tàng sax nga sotti ci bàyyi ba man ko jëfandikoo nga suukar liñ koy suukar jëfandikoo ko lii jëriñ li ëpp ci liy jëriñ de loolu lay def waaye suñ ko toggee moom itam rek dana weesu loo xam ne ku ko jëfandikoo fekk yaa ngi ci sa wér nag mu doo ko yëg wala yaa ngi sa ati gune yi doo ko yëg waaye boo ko rombee rek mu ko kon yooyu itam noonu lañ koy jëfandikoo tegoon naa ci ne su fekkee wax nañ ne ku bëgg koo xam ne bëggula gaaw a màggat ci wàllu lekkam yi nay lekk xaal xaal bii ñuy bay te mu bari fi lool ku koy jëfandikoo am na ci la ci ne loo xam ne moom na waxtaan boppam wax nañ ne ku koy jëfandikoo too gaaw màggat soo bëggee tawati roñoo yi waaw mooy kilaa yooyu ñu doon wax nga xam ne dafa bari tawat te li koy daal ci xeeti tawat bëri lool bëri ne di jàmbat fu ne ci biiram yépp moo ko waral moom itam da lekk melon bi mooy xaal bu ndaw bu buy xeeñ noonu moom itam bëri na fi boo koy jëfandikoo lu bari moom moom tawati roñoo yooyu yàlla mën la ci dimbale ak loolu ñuy wax ariku boo koy jëfandikoo lu bari bari wàllu xeeti eh, roñoo yooyu moom dana yàlla mën na la ci dimbale ñetti yi it naa ne kenn du leen boole mooy yàpp ak jën ak soow déedéet duñ leen boole ci lekk moom itam xam-xam nangoo ko loo ci lekk da koy bàyyi ba mu rees nga door a jëfandikoo la ci des waaye lekk jën boole koog yàpp wala lekk jën boole koog soow ba ci boole jën ak yàpp it yëpp booy sàmm sa wér giram danga koy mooy lu ci ne soo ko lekkee laata ngay lekk moroom ko nekkal ba mat ñeenti waxtu loolu gàtt nga door ko ndax yii yëpp ñuy wax fi mu li koy def mooy yii day gaaw a rees yii du yii di yéex a rees soo ko defee nag soo boolee yooyu nga xam ne dañuy gaaw a rees ak li nga xam ne day yéex a rees wala nga boole ñaar yoo xam ne sax ñoom ñëpp dañuy yéex a rees loolu day indi fitna. moo tax da nga gis ku dem lekk ba ñëpp ñëw naan man de ba ma añee ba tey li may géex daa mel ni nangam parce que li ko def mooy yi muy boole yooyu ñoo ñoo mënul dem ñoo mënul gaaw moom la bàq gi man la gaaw a togg mhm, pour mu jàll kon yii yëpp daal doo naa ne bokk na ci yiñ tënkoon noonu to ñu ngi ko jox nag àddiye jox ko sile sile yëg tut jaxate jaxate ak looloo yi ñu ngi fexe ba jëfandikoo loolu nag ma ñu topp seen ndeyjoor rek ak li ci neex rek yal na yàlla defal ñu wér ñu tawfeex baax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.